fas yéene wéyal waxtaan wi nga xam ne sumboon nañ ko ak yéen te mooy nekkoon ci wàllu jikkoy ab jullit ñi ci doon cuqati yennat par yennat di ko indi ngir mu nekk suñu bindi nafar ngir ñu xoolaat suñu comportement ak yoo xam ne war nañoo daw jëm ca ak yoo xam ne dañuy xool ba xam mi ngi ci ñun wala nekkut ci ñun di beral ab nuyoo bu baax soppee baax yépp yi ci biir réew meeg yi ca bitim réew yépp di nuyu bu baax a baax jur yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di leen wàccee seen wàccuwaay di jéggulu ci léeg kàddu goo xam ne yëkkati nañ ko te buñ nekkoon ci seen kanam duñ ko yëkkati ndax worma ji war dox suñu diggante yéen waaye léeg-léeg bind bi rek mooy laaj ñu war a jëfandikoo genn kàddu waaye yàlla xam na ne day buñ ko mënoon a woddu nettuwaaye ko fomp ko ba nga xamante ne bu ñëwee seeni nopp day sedd gu yu noonu lañ koy defee ñoo ngi leen ci ndokkeel bu baax ci jotaay bi di wàccee kenn ku nekk ci wàccuwaayam rawatina suñu yaay yi nga xam ne ñooy déglu almis baax yépp ak suñ maam yi te di ko tuddee mos baax ne woon naa maam ki ne ko ko tuddee waaye léegi nag eh, bari na ñu may wax ne naka mos baax <laughs> keroog am na ku ne ma naka mos baax am ku ne ko mis baax la mu ne ko mos baax mu ne ko mis baax ma ne ko kon nag mos baax mis baax <laughs> tubarkàl yàlla nañ ko yàlla defal ñu baax ñun ñëpp ñun ak yéen ak ñëpp ndax baax dong nga baax ku baax rek baax ulaayika alladina wa allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina wassuhada wassaalihin assaalihun mooy ñi nga xam ne dañoo baax suñ boroom nee na ñooñu ñooy mujje mbir yi innal arda yarisuha ibadiya saalihun yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañoo baax bu ko defee buñ déggee wax ju safaanu suñu nopp mbaax gi nga baax mooy tax yow doo mën a dégg lu bon loo gi nga baax mooy tax doo mën a fen lu ñu la wax wala boog doo mën a wax lu du dëgg boobu xaw naa diis doo mën a wax lu du dëgg luñ la wax lu du dëgg yow sa defaru mooy tax day mel ni rek baaxal nga ko day mel ni baaxal nga ko moo tax ku baax neex a nax ku baax neexa nax fi mu ne ki nga xam ne nitu diine la wala nit kuy góor góorgóorlu la ba jàpp ne moom ay jikkoom dafa baax moo gën a neex a nax ci ki nga xam ne am mandaari la moo xam ne moom day naxaate waaw mandaari mi moom bala nga koo dóor bala ngaa jaar ci kawam fu ne da nga fa jaar ndax day yeewu jaar lay def waaw loo wax rek mu teg ca dara ndax tappale yi ngay def da nga koo fekk mu di tappalekat moo tax tappale ba jaar ci kawam da lay jafe waaye ki nga xam ne moom ci mbaax rek la nekk ci njub rek la nekk moom booy wax bu la nattee ci niveau rek loo wax mu gëm ko waaw bu nattee ci niveau rek loo wax mu gëm ko maa ngi nuyu sëñ moor Seck cees <laughs> wala moor Jum Eh, la di nuyu ndeyam soxna joor mbegere bu baax mm, xam naa ne tomb bi moom moor na xam li may wax bu baax su ko defee nag man ngaa jàpp ne nax nga nit ki ci àdduna fii waaye fekk na nag waajoo koo nax sax nag ndax dafa am geneen dund gu ñuy xaar ëllëg yomal xiyaam te buñ ca agsee rek eh, nit ki dana xam dana xam ku jàpp ne nag àpp boobu du ñëw man ngay wéy rek di ndaataatal lax ak di fel muy daanu nga yaakaar ne yaa ca nekk loolu moom lu néew solo la waaw loolu lu néew solo la mbokk yi bala maa ñëw ci tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane mm, newoon naa dinaa introduire tuuti jëmale ko ci wàllu aj màkk gi ak waajtaay wi nga xam ne moo ci nekk donte Oustaz Alioune Sall mu ngi ci ci njàngale mu am solo ci philosophie beeg niñ koy defee yi nga xam ne moo ci aju moo taxoon sax ñu wangaroon tem boobu dellusiwaat ci jikko yi yàlla na yàlla may ñi nga xam ne ñi ngi waaj ñëpp suñ borom may leen ñu mott li may leen itam ñu dem ci jàmm ñoo ngi ñaanal bu baax suñ borom defal leen wér sàmm leen ba njaboot gi nga xam ne ñoom la ñuy bàyyi te léeg ñu amuk jaaxle lool genn jaaxle bañ na dal ci seen kaw waaye ñu fàttaliku ne aj màkk ak jaamu yàlla la du ak tourisme du ay visite yu ni di dem du tukki wantu ngir noppalu ji waaye tukki la ngir defi ak jaamu yàlla gu rëy goo xam ne la ca suñ borom dige bokk na ca ku ko def te def ko niñ ko war a defee booy dellu si da ngay mel ne bis ba nga juddoo woon ci ñàkk ay bàkkaar léeg nag nit ci waajtaay wi mu yenu lum àttanut ci yoo xam ne dañ ko doon wax ne ko jëru ko woon mooy léeg tàggoo ji ak lijjant ji ab yóbbal mën naa tax nit ki bàyyi ay waxtu farata yu bari yu mu waroon julli yoo xam ne du ko julli ndax waajtaayu màkk rek tàggoo ji tax tisbaar jot mu ne ci tëli bi tàkkusaan jot mu ne ci yitte yi ah, lu ne mu def ko loolu baaxut dafa bokk ci li jaamu yàlla li nit ki di waroo ci lu baax loolu da cee bokk dafa bokk ci nit ki di waroo ci lu baax mooy waajal lu baax lii tax nga sàggane lu baax lu mel ne moom ndax ki war a aji fi mu ne bu tisbaar jotee tisbaar jooju mooy farata ci moom jee farata la ju muy waajal na góorgóorlu ba du xeeb nit na góorgóorlu ba du ñàkke nit war ma na góorgóorlu ba du dem ba ñëwit di jàpp ne moo gën kenn buñ ko setantalee noonu rek suñ borom subhaanahu wa taala mën nañ cee defal tawfiix waaye nag nit ki yëg ne it fa may dem dama fay summeeku ji dama fay fóote ji samay bàkkaar kon lépp lu may taxal danaa ko moytu danaa fexe ba du doonu nit danaa fexe ba du doonub système moo tax danaa déconnecté ci yenn réseau yi ma bokkoon te aw yiw taxuroon ma bokk ci moo xam gaaram yi wax naka su dul noonu yi la moo xam copain yi nga xam ne ci ndëngante ngeen xamoon moo xam yenn groupe yi la wala lu man di doon loolu daal danaa ci ne kaccat sama bopp nekk nag ci wéetaay ak defaru goo xam ne damay waajal li nekk ci sama kanam bu ko nit defee rek tàmbali naa yeewu day mel ne dina duggante bu boobaa ak suñ tomb bi ñu doon waxtaanee te mooy gaawantu jëm ci aw yiw gaawantu jëm ci aw yiw jëm bi ma yëkkati jotaay bi ma waxoon la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dafa bëggoon sax jullit bi bu fekkoonte ne dem nañ bañ ne àddunaa ngi tukki nii di ñëw feeg midi mu yor ak njëmbat ci loxoom te man koo jëmbat nee na ko jëmbat maanaam kon du wax ne njariñ loo fekke wala li may def amut solo waaye gannaaw lu baax la moom du ko xaare suba du ko xaare tey du wax ne jëratu ko maanaam da koy def ca saasa mu mel ne yëkkati wala boog njëkkantee def lu baax baat bi tegtalewut ne nit ki day lor moroomum jullitam ngir am tiyaaba tegtalewut ne nit ki du yéene moroomum jullitam jenn tiyaaba lu dul ne da koy njëkkante ak moom déedéet day fexe ba bañ a lor ab jullit waaye day fexe ba lu baax li muy wut mu yéene ko jullit ñépp waaye nag du sàggan mukk ba bañ koo def maanaam yéene gi mu ko yéene nit ñi du tee moom mu xëy ca du tee it mu def ko programme am doon loo xamante ne nii ca lay nekk taxaw ca tem ngir fas ko yéene jëfe su ko defee loolu day daan nekk loo xamante ne lu am solo la léeg-léeg ñuy dajale fenn ay jullit ñun ñëpp bokk luñ bëgg maanaam lu baax lañ bëgg waaye ñuy buuxante ba mujj sax nit ki dootu fa jëlee titiyaa ba waaye lor la fay jëlee loroo fa wala mu lore fa ndax jamono ji nga jóggee nit ki wala nga conce ko wala nga bëmax ko ameel nga ko ak ameel nga ko tooñaange ci loolu nga ko def te moo ne tiyaaba nga doon wut si waaye daa mi ne tey yaa ngi njëkkante ay lor te bu ñëpp ne woon tekk loolee ñuy wut danañ ko bokk moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne yaa ayuha nnaas alaykum bisakina fa inna al birra laysa bil idaa yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ngeen dal dal leen dal leen njëkkante lu baax gi may waxtaanee gaawantu tegtalewu ne nit ki daa war di parax-paraxi wala mu doon koo xamante ne nii du amuk dal ab jullit dañoo bëgg mu amuk dal teey te bañ a yambare waaw ab jullit day teey waaye nag bañ a yambare yonent bi sallallahu ne ak mbaax nekkut ci ak gaawtu nekkut ci ak përëx di sànkaate ak di lor ñi nga xamante ne ñooy sa moroomi jullit yi kon baatu njëkkante lu baax li muy tegtale du dara lu dul xir ci def lu baax rek xir ci def lu baax maanaam nit ki na bëgg def lu baax ci xolam xir ci xër ci defe naa dinañ xam liñ bëgg wax maam njëkkante ko tegtalewut ne euh, bu dara teewoon tey day daw jaar ci kaw nit ñi jog leen gaañ leen ngir wane lii maa ko war a def déedéet waaye day doon koo xam ne def lu baax day sedd ab xolam daf ciy xër daf ciy xër al musaabaqa ila al xayraat al xirsu ala taa wal ijtihaad fiha wa adaauha da ciy xër da cay farlu waaye lu muy def da koy def ba mat sëkk taxaw ca ci lu amut ak tayyeel lu amut ak lot lu amut ak suufeel su ko defee aw yiw day daal di tàmbulee dugg te loolu mooy li nga xam ne mooy def lu baax dëgg-dëgg mbokk yi def lu baax jamono ju ne lañ ko waroon di gaawe rawatina jamono jii nga xam ne lu baax bu yombee tey bu subaa mu jafee-jafe ba jaaxal nit ki ci ni nga xamante ne noonu lay jafee ci moom moom lu baax loolu moo taxoon ki yàlla yónni ci ñun sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne gaawantu leen ci jëf-jëf ju baax gaawantu leen ci jëf-jëf ju baax ndax jamono ju ñëw joo xamante ni ne fitna day tasaaroo na day tasaaroo ba nga xam ne waa ji dana xëy suba doon ab jullit balaa ngoon a jot mu doon ab yéefar waa ji gont doon ab yéefar doon ab jullit balaa bët set mu doon ab yéefar waaw xëy suba julli suba nekk ab jullit àqan balaa ngoon a jot ñu def loola jëfi yéefar joo xamante ne nii ku la nattati ci njullit sa njullit lépp set wecc guddi jot nga tàqalikook nit ki ba ngeen di tàqalikoo mu nekk ab julit balaa bët a set système dugal ko ci càggante goo xamante ne nii bu moytuwut bu bët di set mu yeewu doon koo xamante ne ab kaafir lay doon nga xam ne nit ki mën naa jaay diineem ci lu ñàkk solo ci àdduna waaw jaay diineem ci lu ñàkk solo ci àdduna gars yi dañoo gisul rek marché bu ñaan indi sa diine ji jaay ma sa tur wi nga tudd di Abdullahi wala Muhammad seexu naa wala nangam jaay ma ko te nga tudd weneen tur buñ ko gisoon da nga gis koo xam ne dana dem ca comptoir ba ne jëlal saw tur te jox ma nangam ndax danaan ah, nu ma tudd baax na naa dund rek bu doon dañoo tegub comptoir ne dañuy jaay diine ji ku ñëw joxe sa diine ñu jox la nàngam yàlla xam na ne daa gis koo xam ne dana ñëw joxe diineem ñu jox ko xaalis mu dem yoonam ndax jamono ñi nii tey nit dana def loo xamante ne wóor na ko ne diineem daf koy bañ waaye danaan da ngay maslaa rek dana ne ci marché bi de di jaay am loo xam ne diineem da koy bañ waaye dañ ko naan yenn jikko yi de boo ko amee bay bon nga bàyyi sa njaay mi te xam ne sa njaay mi du jar mu tàmbulee maslaha mu ñëw indi ko ci barabu liggéeyukaay bi nekk ak ay nit am lu ko diineem diggal waaye dañ ko naan bés boo fi toppee yenn diine yu metti yi nag yu radical yi dana mujj doo mën a jëf ak nit ñi mu tàmbulee bàyyi diineem tàmbuli koo oyofal ndax bëgg a mën a jubóog nit ñi bu boobaa nag kuy def lu baax te àggugoo ci contexte boobu rikkuwaay gaawal loo gaaw na nga ko xeep ci góor góor lu gaaw def lu baax ndax soppeeku jamono ak soppeeku nit ñi ak yi nga xam ne moo ci aju fitna yooyu dana tasaaroo lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon ko ca ba muy wax màndarga yi wane ne bis pénc mi ngi jege si buñ ko xoolee danañ ko gis ci fànn yu bari bokk na ca yooya yeneen saa salaam dafa waxoon ne gaawantu leen jëf-jëf yu baax gaawantu leen jëf-jëf yu baax balaa juróom-benn yii di am te juróom-benn yooyu ku xool tàmbali koo gis juróom-benn yooyu ba ca njëkk mu ne dañuy jiital ko dañuy jiital ko doyadi maanaam dañuy fal koo xam ne matut koo xam ne matut ku doyadi ku doyadi da nga ñëw ci daayira ñu ne la kii mooy président daayira bi waaye booy xool mooy ka gën doyee di ca mbooloo ma moo waroon a topp ca ginnaaw tey moom lañ naan jiitul ab association nga ñëw ka waroon a topp ca ginnaaw moom lañ naan jiitul du doon am njàng du doon jikko du doon ak xam du doon xàmmee kenn xamut lu tax ñu jiital ko léeg-léeg mën naa doon xaalis lay doon wala ay mbir bu ñu jiital daal koo xam ne melut ni mu war a mel yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na loolu ci màndargay bis penc yi la bokk jiital ko jiital ku réer defal ginnaaw ko xam boo demee ci jotaay yi ña xamuñu ñooy ne ca kanam ña xam ñooy ne ca gannaaw waaw ña xam ñooy ne ca gannaaw sëriñ Moussa Ka ne woon na gumba gu jébbal tumba ngeen di njàccaar du ko ne fii ngay jaare sëfoor a yor baar hmm, mooy koo xam ne ay bëtam gisut mu dem gis ku mel ne moom jox ko ab yatam ne ko womman ma nee na ma du ko ne fii ngay jaare ndax kat ab baar moom sëfoor a koy yor moo yor direction ba di dawal kenn du ko jox koo xam ne xamu ca dara ba ca topp alayhi salaatu wasalaam nee na police yi bari maanaam bu ñu demee ba euh, police yi bari nga xamante ne dañ naan xus <laughs> bari lool waaw bari lool xaw tuuti kon nga mën caa teg ne moom daal tubarkàl la waaw ndax ma ji war a dox suñ digganteeg ñoom yal na yàlla sàmm leen waaye nit ñi dañoo waroon jub yaru tegu ci yoon ba téeméeri nit buñ dajee woon soxlawul ñuy am sax kenn kuy ñëw ne maa seen sécurité wala maa leen di jubbanti wala maay def maay bañ geen def nangam ndax dañu yëg ne la ñuy wax naan daa juunu ba buñ ko def am na ku ko njëkk a bañ te kooka lañu war a gën a sàmmonteel ba ca topp mu ne buñ demee bay jaay àtte ñuy jaay àtte yi allahu akbar jaay àtte yi nga xamante ne ki am ay moyen moom mën naa def lu ko neex waaw ku am mi junni judduwaat di buur fëri loolu la sëñ Musaa ko waxoon ku ko amul ñu ber la loo gore gore waaw wax na ne mën naa la soo ko joxee waa bureau ba koo mën a léewtool ñu yoral la bëri ba nee na xaalis moom boo ko joxee ña kaw defalu la neex ñoo la yoral say mbir mën naa laxaa soo ko joxee avocat soo yebu woon rey nit amut kii ak kaa <laughs> ndeysaan yàlla ñu ko yàlla fayal buñ demee bay jaay atte kon ba ca topp yonent saa sallam nee na buñ demee ba oyofal tuur deret deret ñàkk solo lool nga xamante ne tour deret moom moo bàyyi lañ yemale waaw nit ñi dee fourage dañ ñaan accident mortel ñaata moor ñu ne douze moor ñu ne catastrophe daal di def ay bref journal ko léeg-léeg ñu def délégation jaale ji mu jeex bu subaa ñu tuddaat nangam moor nangam moor nangam moor rek bu boobaa nee na yowmal xiyaam àddunaa ngi bëgg a tukki ba ca topp nee na buñ demee bay dagg ak mbokk nga xamante ne ak mbokk moom kenn tegu ko mu nekk dara dara dara dara ak mbokk dañ ko dañ koy ñaawal dog ko ba nga xamante ne danaa mas a ñëw ci ak mbokk ak niñ koy sàmmeek yi nga xam ne moo ci aju ndax moom it lu mel ne lu yomb la waaye lu euh, lu jafe la waaw lu jafe la baax yomb na lool baax baax na lool waaye baax ci say mbokk ak jafe ndax day am ci mbokk yi ñoo xam ne moom mënoo fexe fexe fexe fexe ba baax ci ñoom ni nga xam ne mënoo fexe ba man li ngay def ci ñoom noonu lay demee ba day fexe ba sag mbaax ci ñoom day jafe lool day ja day day day jafe lool nee na bu demee ba euh, toll ci jamono joo xamante ne alxuraan moom dañ koo jàppe rek mbirum fawukaay waaw mbirum fawukaay def ko mu nekk ay woy woykat yi di woy alxuraan nga xam ne ku la gën a néew aliwoo gën la ko num tuddati ma nga ca waaw moom la ñuy misigee moom la yóbbu ca làmb ja mooy dem fépp nee na boobaa nañ xam ne yowmal xiyaamatil akbar mi ngi tàmbulee jege si mbokk yi yu mel nii nag bu amee te tàmbulee jege si dañoo bëgg nit ki gaawantu nag ci jëf-jëf ju baax gaawantu nag ci màng ay jëfam yépp ci topp yàlla subhaanahu wa taala moo tax njëkkantee def lu baax amoon solo jamono ju ne waaye rawatina jamono góor góorlu ci nag bañ ko wutal ab àpp bañ koo wutal itam waxtu bañ koo wutal itam benn jamono waaye def ko rek mu nekk say mu nekk say mbir nekk ca rek bul jàpp ne màggat naa dama war a bàyyi bul jàpp ne tawat naa damaa war a bàyyi alxuraan moom la doon wax naan waabud rabbaka xatta yatiyakal yaqiin waaw nekkal di jaamu sa borom ba dee di la dikkal waaye bul bàyyi waaw ab jullit du bàyyi mukk wala takunu kallati naqadat qadlaha min ba'di quwwatin ankaasa waaw bul mel ne ñi nga xamante ne seen kattan dañ koo foye dañ koo foye dañ koo foye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy dénk Abdullah ibnu Amr ibnu Aas radiyallahu anhuma daf ko wax ne ko yaa Abdallah laa takun misla fulaan kaana yaquumu layli fa taraka xiyaamu layli <laughs> bul mel ne diw <laughs> moom day euh, euh, dana dana taxaw guddi gi waaye nag day bàyyi taxawe guddi gi ci misaal mën naa fanaanee xoole waaye nag e, du du naafi la guddi léeg mu am koo xam ne moom du nelaw guddi dala koy wax sax ci garam place yi lay nekk ci internet bi lay nekk moom ak waa joo xam ne nocturne la ñu noonu la ñuy wax ah, du nelaw temps yi damaa dégg tubaab du nelaw du def dara waaye nag du ko tax dugg ci ak jaamu yàlla waaw du ko du ko tax a dugg ci ak jaamu yàlla bu boobaa kooku mi ngi mel ne ku am temps bu yaatu fursa bu yaatu waaye mi ngi koy sànq ci loo xam ne lu ñàkk solo la loolu baaxut su ko defee kon dundal say waxtu am na solo njëkkantee def lu baax am na solo góor góorgóorlu ci def lu baax it am na solo yal nañu dimbali ba ñu boole yooyu yépp di dundal suñuy waxtu di góorgóorlu ci def lu baax di góorgóorlu itam ci njëkkantee def lu baax sayyidatuna Aïsa nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana ida faatathu salaat min alleyli man wajaa aw xayrihi salaa min annahaari sintay asra rakka nee na yonent bi sallallahu alayhi bu ko ak guddi masaana faat ba guddi gi naafilawu ci daan na ko metti lool ba tax na guddi gi bëccëg gi daan na ci naafila lu mat fukki rakk ak ñaar ci bëccëg bi ndax lan jéema a dab dabaatal waxtu yi nga xamante ne moo ko faat te loola ay naafila la moom mi suñ borom ne jéggal naa la nag loo ma mas a def te mënatoo maa def dara lu ma naqari kooku moom gannaaw moo xante woo noonu digganteem ak boromam ngir bëgg mu ratax asemaag ñun ñi nga xamante ne suñu mbir leeragut suñu mbir leeragut te moom suñ borom nee na ko li yaxfira laka allah ma taqaddama min danbika wa ma taaqar kon nag mu ne afala akoona abdan sakura loolaa tax nag dootuma laal suuf ndax dama bëgg a ci doon koo xamante ne nii dama koy sant ci woowu ma defal mbokk yi diirub ay bis a nii wala ñaari ay bis ba ñett yoo xam ne ñoo ngi doon waxtaane gaawantu jëm ci lu baax ak yi wuré wi nga xam ne moo ci nekk waxoon naa la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko daan jàngal saxaabaam yi radiallahu anhum daan leen wax benn bis ne man minkumul yawma asbaha saa iman tey jii ci yéen kan moo fi xëy si waale koor abubakar ne ko ana ya rasulallah yonent bi toog ba mu yàgg mu ne fa man tabia minkumul yawma janaasa tey jii ci yéen kan moo fi demagun ci ab rob ñépp ne ci yàlla abubakar ne ko ana ya rasulallah man dey dem naa ci ab denc di wafaatu woon dem naa ca yonent bi toog ba mu yàgg mu ne fa man otimal yawma minkum miskina tey jii kan moo fi jox aw mis ab miskin dara kan moo fi saraxe ñëpp ne ci yàlla abubakar ne ko ana ya rasulallah yonent bi toog ba mu yàgg mu ne fa man aada minkumul yawma marida tey jii ci yéen kan moo ci seeti ku feebar ñépp ne ci yàlla abubakar ne ko ana ya rasulallah man dey def naa ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne majtamaanna fi amrin illa daxalal janna amut kenn koo xamante ne jëf yi dana daje ci moom mu def ko ci bis lu dul ne aljanna ubbil nañ ko buntu ya waaw day dugg aljanna koo xam ne bis bi fexe na ci ba woor fexe na ci ba dem ci rob fexe na ci ba saraxe fexe na ci ba seeti ku feebar ñeenti yi yonent bi alayhi salaatu nee na kum daje ci bi yow kum daje ci yow euh, nga dugg aljanna mbokk yi boo xëyee te mënoo woor boo déggee ab rob te amul jot dem ca boo ca mënta dem li la yàlla wërsëgale saa yoo xëyee na nga ci saraxe bu loolu jàllee nag koo dégg mu tawat ci ñi nga bokkal bureau ñi nga mbokkal ñi nga nga dëkkal ñi nga gëj a gis demal seeti leen wala jëlal sa téléphone woo leen moo tax loolu aw yiwu rëy la Aboubacar ne moom yooyu yëpp def naa ko suñ borom subhaanahu wa taala tagg ko nam ko tagge woon moo tax Aboubacrin siddiqu suu sidqi wal wafa rafiqu nabiyil mustafa al qaara an ba'u koo koy Aboubacrin siddiq tomb bi ñu doon waxtaanee am na solo di lu jëm ci wàllu njëkkante def lu baax jaaroon naa ci jenn aaya joo xam ne suñ borom daf caa wax ne wasaari'u ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin suñ borom nee na samp leen seenu xel gaawantu leen nabar nabar nabar ñu ne ko ci lan mu ne waxuma commerce de nabar nabar ñu ne ko yàlla luy bar mu ne nañ gaawantu leen jëm ci wut njëggalul seen borom moo leen di tax a tabbi ci aljana yu yaatu ya aljanna yooyu ñi ko yàlla waajal mooy ñi bàyyi xel yàlla te mooy ñi ko ragal amaat feneen foo xam ne nag saari saari'u waaye saabixu la wax mooy gaawantu leen kon samp leen seenu xel waaw samp leen seenu xel ñukk leen njaab leen daw leen fan ila maxfiratin feewa saari'u ila maxfiratin fii saabi saabixu ila maxfiratin waaye yëpp nag min rabbikuma ca topp waaye ñaar yëpp wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rasulihi looloo topp ci bu ñaareel gi yal nañu yàlla may ñuy gaawantu ci def lu baax samp suñu xel ci def lu baax bañ caa xeeb dara gaawantu ci naafile yi gaawantu ci lépp loo xam ne aw yiw la woo xam ne mën naa dox suñu diggante ak yeddaange ëllëg yowmal xiyaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon naa la ne gaawantu leen ci wut leen tee dugg sawara même su fekkente ne ab tàndarma sax ngeen di jël saraxe ko loolu moo nekkoon tomb waxtaane gaawantoo def lu baax ak yi nga xam ne moom lañ ci boole woon ci ay tomb yuñ ci doon waxtaanaale yépp bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko daañu wéyal tomb waxtaan boobu war a duggaat ci beneen te mooy xër nag xir ci dundal saw waxtu bañ di sànq waxtu bañ di ko neenal jaajëfal nañ leen bu baax a baax ñaanal leen delluwaat di waat ci yéen ñaan ñaan suñu borom subxanahu wa taala mi yor jàmmi àdduna yor jàmmi àllaaxira yàlla nañ ko boole defal santaat nañ leen bu baax a baax jaajëfal leen oustaz Alioune Sall la bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subxanahu wa taala mu sàmm ko te sàmmuñu seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu